mbokki euh, internet yu Actunet yu Sen TV Zik FM ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar entretien bi nga xam ne bi dañ koy jagleel ñoo xam ne ñi seen kàddu fes na lool ci ay bés bi ngir ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne li moom mooy xew-xewu jamono fi mu toll réew mi na li nga xam ne lii moom la seen xel màcc tey nag ñu ngi ci am mbégte lool di ci dalal Djibi xam ngeen ko transporteur la nekk tamit euh, président bu fédération national transporteur euh, pour le changement loolu na bëgg nañ ci waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu euh, transport bi alors Jibi Ndiaye am nañu mbégte lool dalal la ci Actunet jërëjëf daam maa ngi lay ziare bu baax di jaay ziare waa fédération nationale des transports du Sénégal pour le changement waa FNTS yëpp di ziare waa Sénégal gépp di leen nuyu vraiment di nuyu aussi groupe D-Média alors damay wax Jibi Ndiaye euh, chauffeur wala chauffard parce que baat boobu léegi dafa mel dafa xew de nga baal ma nag mais dañ ko tudd. am na conducteur. am na transporteur man mais man transporteur la maanaam maa moom oto bi conducteur bi di dawal xam nga transport dafa am conducteur am transporteur transporteur propriétaire mooy maanaam kii moom oto bi nga xam ne moom la conducteur bi di dawal maanaam chauffeur bi ki ngeen di woowee communément chauffeur mais man transporteur la maanaam propriétaire de véhicule. maanaam kon chauffeur baat bu péjoratif la. chauffeur ñiy tooñ ñoo koy wax mais conducteur la ñuy wax parce que dañ ne permis de conduire donc conducteur voilà. justement Djibi euh, fi ñu toll nii bëgg nañoo wax ak yow ci lu jëm ci wàllu transport ci nu mu gën a yaatoo mais fi ñu njëkk a doore gis nañu accident yi quand même euh, daanaka mënuñoo toog bésu lëmmu te du ñu dégg accident am na euh, ba jëwriñ sax commencé ne fi ñu toll nii nag daanaka neex neexal neexal ak nenga nengal amatu ci dañuy nangu permis nangu licence yooyu yëpp ndax mbir mi jaar ci yoon jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci kaara ngi biir réew mi également njëkkoon koo wax ndax da yaakaar loolu mooy solution Sénégal war nañu war nañ ko ndëppal d'abord ndëpp ndax am na loo xam ne buy xew nekkul lu naturel à tout bout champ accident accident bu ndaw nit de donc Sénégal dama ne war nañ ko ndëppal ndax am réew day toll jamono boo xam ne day am lu mu laaj xaw ma ndax tey autorités yi fi nekk xam nañ ko wala xamuñu ko mais accident yi man li ma gis du jàmm te du naturel muy benn ñaareel ba tamit accident kenn mun a tàggoog moom ci transport. accident du fi ma sa jógee xanaa day wàññeeku ñetteel ba suñu infrastructure yi fi nekk maanaam route nationale numéro un numéro deux ak numéro trois fii ñi ngi fi accident du fi jóge ndax oto dinañ daje ndax tali dafa xat donc man li may wax tous les jours li may ñaan tous les jours mooy état bi jóg taxaw ci defar ñu ay deux fois deux voies ba oto yi dooruñu jàkkaarloo ba oto yi dooruñu daje di def accident yu métti yi ndax boo seetloo autoroute à bi ba mu fi amee ba léegi yaa ngi dem Touba te déggoo ñaari yu daje. lan moo ko waral parce que y a deux fois deux voies séparées donc li ñuy ñaan mooy si autorité taxaw ci loolu ba accident yi mën a wàññeeku nga xam ne bis boo xamante ne am na conducteur boo xam ne mënta dawal wala am na am na benn benn problème boo xam ne am na ko ci otoom wala wala wala wala yu bari dootu daje ak oto mais maanaam dina mbëkk glissière wala mu dem ci décor bi donc li ñuy ñaan daal mooy état taxaw ci. defar ay deux fois deux voies pour wàññi accident yi. ndëpp moom boo ko waxee day mel ni dafa am leneen lu rax lu bokkut ak sàggentu chauffeur lu bokkut ak yoon yu bon. am na ndëpp dafa am am réew dafa am foo xam ne dañ koy ndëppal defal ko ay sarax te loolu mag ñi may wax xam nañ ko ñu yàgg ci dëkk bi xam nañ ko donc nañu xool loolu autorités yi nga xam ne ñoo yore réew mi tamit ñoom nga xam ne ñoom lañ dénk sécurité réew mi saytu ko ba def ci liñ ci war def ba yàlla dalal mbir mi. ndax boo seetloo ci bi nawet bi jub si am na ay seetkat yu ko waxoon ne accident yi dana bari ci nawet bi donc état bi war ñoo jóg ci loolu xool loolu te xam ne lii nekkul rek loo xam ne ay accident kese la nekkul loolu loo xam ne lu naturel kese la. est-ce que du ñàkk a permis euh, de conduire bi nga xam ne dañ koy am appliquer également permis à point comme ni ko jëruñ ji waxee. dama ne nañ appliquer permis à point man d'accord naa ci ndax man kon transporteur laa te bëgguma sama alal di yàqu. bëgguma sama personnel di dee bëgguma tamit di am ay contentieux tribunal ci ay accident nañ appliqué permis à point mais kañ lañ ko appliqué bala ñu ko appliquer na fekk li nga xam ne moom la war a àndal ñu teg ko maanaam mu nekk ay ay ay infrastructure yoo xam ne dafa war a am ci euh, ci ci ci ci ci comment ci réseau bi bañ mën a appliquer permis à point waaye nii nii Sénégal pareegul pour appliquer permis à point France gi nga xam ne sax ñun lu bari ci moom lañ koy royee matalaygul li tax muy appliquer permis à point donc Sénégal infrastructure yi nga xam ne moom la permis à point war a àndal amagu fi. mais justement Djibi Ndiaye est-ce que tey mën nañoo wax ne kon am nañ sañ-sañu gis nit def benn infraction ñu nangu permis am nangu licence am est-ce que dégg nga ay chauffeurs yoo xam ne nangu nañ ko. dama ne kenn kenn amul droit accident am nga jël permis jàmbur wala nga jël carte grise am wala nga jël licence am kenn amu ci droit. le ministre El Hadj Malick Ndiaye nee na. du président la République du ministre kenn. gis nga accident bu amee dafa am fu muy jaar day am constat bu fekkee ne c'est un accident mortel day day permis day dem commission dem tribunal am jugement am li ñuy wax euh, comment dirais ordonnance ba tax na ba tax ñu mën a war a mën a appliquer la loi dans tout sa rigueur mais kenn amul droit kenn amul euh, euh, man-man kenn amul doole nangu permis jàmbur wala carte grise jàmbur wala euh, comment dire licence yu jàmbur ci ne dafa def accident kenn amu ci droit. ministre kon bu ko waxee fan na ko teg. dama ne li may waxoon ci yeneen wax laay waxaat ministre ministre de la république la ministre bi na xam lan moo ko fi indi ndax Sénégal ci ay jamono passé amoon na jaay doole ministre un an ci ginnaaw takkal nañ ko lam boo xam ne du mën a dem fenn du mën a dikk loolu tekki nañ ko tey donc bu ko takkal keneen moom l' essentiel mooy ñun ministre de la république dafa war a liggéey def résultat defal ko ñi nga xam ne ñoom lañ nome ñu fal ko ñu ñoom lañ fal ñu nome ko donc am na ay wax yoo xam ne à show kilifa du ko def parce que day am lu muy jur ndax di nga dem ba sa biir njaboot ñi nga xam ne ñoom nga njaboote ñu weddi la te suñu la weddee mën naa jur leneen. yow dafa xamul rôle pour yow. dama ne kilifa du wax ci mbedd noonu jël décision comme ça loo xam ne saytuwu ko. mais lii dama xam ne saytuwu ko waxu ci ak ay collaborateur waxu ci ak ay conseillers bay wax loolu nga xam ne mooy xëy rek nangu ay permis xëy rek nangu ay carte grise xëy rek nangu ay lisance loolu amul fenn te amul droit bi bu ko defee jaay doole la def bu ko defee dafa wane ne moom mooy ministre waaye un an ci ginnaaw ko woon. mais béréb bu fekkee béréb yu am accident la ko wax la ko xamle ah dem ba xool constat bi gis ne chaque fois ay défiance technique parfois ay càggante parfois sa du tali. dama ne. loolu lépp xam nga kii def accident il est couvert par ce qu'on appelle l'assurance kii def accident il est couvert il est couvert parce par parce li ñu tuddee li ñuy wax assurance il est couvert par li ñuy tuddee permis parce que permettre nañ ko par licence parce que jox nañ ko licence par euh, comment dirais-je euh, assurance parce que fay na assurance am donc kooku dafa am ay textes ak ay lois yoo xam ne moo régir li nga xam ne mooy transport ba tax moom mu koy def ba tax moom mu ciy jaar ba tax ñun lépp ñu ko mën a teg tamit dañ ko teg ci ay texte dañ ko teg ci ay yoon waaye tamit xëy rek damay def lii ci autorité loolu mën a ñàkk. vous êtes pas des vous êtes des justiciables hein euh, moo tax ma ne lu waay def dafa am fu war a jaar ay étape na jaar nañ jaar ci étape yooyu ba wax li nga xam ne loolu lañu war a wax ba dogal li nga xam ne loolu la ñu war a dogal waaye accident kese dañuy dañ lay dañu lay nangu sa permis xam nga permis lan mooy lan permis c'est un diplôme c'est un diplôme docteur jël na fi ab di ko faj ba mu faatu est-ce que nangu nañ nangu nañ diplôme am docteur laa wax docteur yor na fi malaat di ko faj ba malade ba faatu est-ce que nangu nañ diplôme am quand même nañ joxante cër les transporteurs sont des patriotes réew mi li ñu fiy investir li ñu fiy def amul kenn ku ko fi def. ku def erreur médicale ñu sanctionné la. boo dee médecin dama ne ku def erreur médicale ñu sanctionné la d'accord nañ ci mais dama ne lu ëpp ci sénégalais ñi ngi dee ci hôpitaux yi te nanguwuñu diplôme diplôme médecin yi. donc tey bu ñu ne rek chauffeur bu def accident dañu nangu sa diplôme loolu jaay doole te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. justement Djibi Ndiaye bu fekkee ne loolu wax nañ ko euh, gis nañ fa yii yëpp na ci gannaaw tabaski bi yéen transporteurs yi ñu bëri seen xool dafa mel ni neexul ndax euh, dañu gis état wax dëgg yàlla ñëw taxaw aw askanam na leen wax dëgg yàlla chauffeur si kat ñu ngi ñuy jaay doole ñu ngi ñuy noot kon nag Dakar dem dikki na ñëw euh, liggéey liggéey bi loolu dama yaakaar da ngeen ko a rafetlu ñun mosuñu jaay doole kenn mosuñu yàqal kenn mosuñu teg benn client loo xam ne waruñu ko ko teg euh, li xew tabaski bi ñëpp gis nañ ko xam nañ ko tamit xam nañ c'était un plan boo xam ne bu ñu teg la te tey Dakar Dem Dikk boobu ngay wax ñu moom la indi bu leen neexee Dakar Dem Dikk yóbbu nit ñi aletu duñ fay dara ndax ñoom jënd nañu oto fay ñu assurance fay ñu traite euh, fay ñu carburant bu leen neexee yóbbu nit ñi aller retour te duñ fay dara ñun nag en tant que des professionnels yoo xam ne dañoo am ay engagement am ay responsabilité nekk ay professionnels depuis dans la cité depuis des dizaines d'années am na loo xam ne mënuñu ko tey te mënuñu ko ëllëg te le transport à se réalité tey jii booy dagg billet d'avion aller ak aller retour xam ne tolloowuñu tolloowuñu tarif billet d'avion bi ngay dagg tey ci li nga xam ne période du période de vacances du période dara ak billet d'avion bi ngay dagg période de vacances tolloowuñu euh, euh, màggal gàmmu tabaski c'est des périodes yoo xam ne ay voyage sans retour ngay def maanaam dangay ngay dem nga def all pied nga ñëw do mais lan mooy combler ce carburant là mais xam nga fan problème bi nekk Sénégal la war la ñu war a toog wax ci tarification Sénégal la war nañ toog liggéey ci tarification ba ne nii lay demee bu lool amoon tey euh, désordre bi du am. ko boo ko bëggee boo ko bëggee boo ko bëggee triplé boo ko bëggee triplé ko mais. triplé amu fi dafa am une communication boo xam ne moom lañ jàllale wax ko mais yow nga benn client bu ne man dañoo triplé doo ko gis l' essentiel que li ñu ma jàpp ñun na état bi toog ak professionnel des transport ñu ne léegi tarification yi nii lay tëddee nii lay tëddee ci période bi nii lay tëddee ci période bii nii lay tëddee ci période bu ko defee ñu koy appliquer mais bu loolu amul anarchie day am waay ju nekk benn waay sax mën naa tëbee ne def lu ko neex mais état bi mu war a jublu ci loolu ay tarification yoo xam ne depuis 2009 ba tey jii kenn waxu ci te lépp a ngi yokku mais xam ngeen loolu jaaduwul loolu jaaduwul état moom war a jël responsabilité am ñu toog wax ci tarification yi ba nga xam ne nii lay tëddee ak nii ak nii ak nii. am na ci kenn ci seen mbokki transporteur yoo xam ni moom dañoo rafetlu taxawaayam ba di ko kañ sax bi ñu demee bu maraîcher fekk ko fa jàpp ne kii c'est un exemple yokkul wàññiwul. dama ne euh, euh, nit kooku amee noonu lañ fekkee benn waay boo xam ne dafa yokk paas te yëgu ko xam nga transport ya dafa am dafa dafa libéral comme ni ñu koy waxee de trop man en tant que propriétaire mën naa am sama car bi tey sama conducteur yore ko di ci lu ko neex du ko yëg. te ce système là dañ ko war a changer te ni ko war a changer mooy changer le système d' exploitation ci dem ci gaaru routière yi exploitation bi ñu ko nit ñi nekk ci nekk ci mbedd mi ñu jële leen fii cadrer ko ba nga xam ne dañuy norme lépp li nga xam ne noonu la transport war a donc mise bi ñun foofu la koy xaar normalisation réglementation mbir yi jaar ci yoon ba nga xam ne tey muy transporteur bi muy euh, usager bi di client bi muy état bi kenn dootul am problème ku nekk day nekk si jàmm. alors xam nga dem dikk tabaski bi ti noonu lay defaat de nu ngeen yéen nu ngeen ko nar a waajalee bee moom xëy na dalee na bettoon wala bettu leen woon dama ne dem dikk bu mën a yóbbu client yëpp ci Sénégal nañ leen yóbbu l'essentiel ñun suñu wërsëg am nañ ko te kenn mënuñu ko jëlee suñu wërsëg moom kenn mënuñu ko xañ buñ mënee jël bus yëpp ko Sénégal yëpp transporter nit ñi gratuitement nañ ko def parce que moom moo ñu gënal buñ mënee jël eh, nit ñi nga xam ne ñi partout dans le Sénégal yóbbu leen Touba ñu dem ziyaare ji suñu maam Serigne Touba ñibbisi nañ ko def mais l'essentiel suñu wërsëg moom kenn nu ko lekk xañi seen loxo rek ba ngeen war a appliquer li xam ne moom mooy tarif bu normal. dama ne tarif normal lañ mës a def dem dikk boobu ngay wax. da ngeen doon yokk paas yéen tam boobu ngay wax tey jii en temps normal tarif bi muy def Touba dakaar moo gën a cher suñu bos lu tax boobu loolu waxuñu ko. en temps normal en temps normal tarif bi muy def Touba Dakar moo gën a cher suñu bos ñun. tarif bi def Dakar Dakar Saint moo gën a cher suñu bos donc en quelque sorte en temps normal tarification yi muy appliqué ah ñun bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ko autorisé woon. moo gën tarification yi xam actuellement moom la ñuy def lu tax defuñu loolu donc état moo war a jóg encore ñu profité ci encore di xaar les états généraux ñuy wax parce que états généraux yooyu dina en dina englober lépp li nga xam ne mooy doxal transport te loolu lañ bëgg ñun que transport dox que Sénégal jëm ci kanam ñun ñi ay transporteurs ñu profité ci parce que le transport c'est un secteur wax na ko keneen xam na ko keneen xam na ko moo tax boo seetloo chaque année chaque deux ans chaque trois ans Dakar dem dik ñu changé ko jël oto yóbbu mbalit loolu moo ko waral parce que le transport le secteur est déficitaire donc loolu lañ ci war a wax ba nga xam ne transporteur dañ seen bopp ci liggéey bi doog toog seen biir yéen transporteurs yi waxtaan ne pour xëy na ñu bañ a gaare suñu oto wala ñu bañ am jafe-jafe ci xew-xew yu mel ni màggal Touba xew-xew yu mag diine yu mag yooyu euh, nañu fexe ba mën a euh, wàññi ba mën a concurrence ak dem dikk wala da ngeen nar a béyiwaat. dama ne ñun lañ doon liggéey la ñuy liggéeyee. ni ngeen ko doon yokkee. nañ daan yokkuñ mosu ñoo yokk dama ne nañ doon liggéeyee di ko teg ci yoon noonu la ñu ko ne liggéey amul kenn ku mën a changer suñu système de travail parce que ñun ñoo ñoo ngi fi depuis plus de cinquante ans di liggéey di góorgóorlu RTS bi nga xam ne moo ngi fi woon RTS bi nga xam ne moo ngi fi woon nekkoon eh, état yore ko oto yam yore woon ñun transport yi ñoo ko mujj jënd di ko di ko di ko dawal Sénégal dem dikk mi ngi fi Sotrac jaar na fi ñoom ñëpp lan la ngelaw peut-être chaque année état def ci ay centaine de milliards centaine de milliards yooyu jëloon woo la secteur privé du transport leen wax leen ne leen ah ñun kat lii lañ bëgg léegi transport doxee boobaa dina gën a dina dina gën a ñoŋ dana gën a baax mais loolu amul donc cet état dafa seetaan le secteur du transport te tey ji li ñu di woowee mooy ñu fexe ba li ñu wax le transport interurbain ñu jëmale ko kanam def ci changement ba nga xam ne dañ ay car yoo xam ne ay car yu mucc ayib la pour ñu mën a ko ne liggéey def le secteur te ñun ku ñu lebal dañ lay fay. jub jubal jubanti la ñu woote te dañ ko bëgg door ci def ci transport bi. dama ñun ñoo njëkk a jub ñoo jubal ñoo njëkk a jubbanti ndax ñun li ñuy investir suñu alal la jë amuñu amuñu million dem yóbbu ko à lu ñu am dañ ko investir fii ay sénégalais ñoo ciy liggéey ay patriotes ñoo ciy liggéey suñuy doom ñoo ci liggéey suñuy jarwaa ñoo ci liggéey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc jub ak jubal ak jubanti ci ñu la njëkkee kenn duñu ko kenn duñu ko jàngal donc l'essentiel pour man mooy que na état bi taxaw jàkkaarloo ak les secteurs privés de transport ñu def mbir mi ba nga xam ne incha allah euh, euh, ku nekk da nga ci gis sa bopp Sénégal jëm kanam. voilà mbokk yi yéen a ngi euh, seetaan seen émission euh, entretien ci euh, ActuNet ñu ànd ceeg Djibi Ndiaye Djibi Ndiaye mooy président président bu fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement nekk tamit transporteur Djibi mënuñoo jeexal benn point te duñ ko waxtaanee. mesures yi jël jëm ci BRT bi bu yàggut barki dem mooy Ndiaye ba seen naataangoo yi nekk ci aftu yeeg ñoom ñëpp di kaas dem sax bay dut baaraamu tuuma docteur Aw ndax yow nun nga ko gisee. waaw ma dellusiwaat rek di wax ne di leen sant encore une fois man berte bi depuis euh, six ans maa ngi ciy wax ndax xamoon naa ne fii lañ jëm si ak ñoom ndax berte bi dañ cee dafa commencé li ñuy wax ay ay faux débat maanaam dañoo nax état bi jaay ko projet bi te liñ ko jaay di loolu buñ ne tey berte bi dina dee bu trois cent mille personnes tey mën ta def cent mille personne dinañ fexe fu ko combler moo tax ñu bëgg ñoo dàq bëgg ñoo jëlee ci ñi xam ne ñooy les transporteurs euh, traditionnels ñu bëgg jë jëlee fi ñu nekk pour xalal berte bi te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg li nga xam ne tey euh, ni nga koy waxee ni nga ko waxee noonu waa service ñu koy def à travers le directeur général euh, Thierno Birahim Aw loolu moo ko indi BRT bi dañ koo jaay état bi ne dina def 300000 voyageurs te mën na def 100000 voyageurs tey ba tax na ñun ñu bëgg ñoo xañ suñu wërsëg. mënu ko def te du ko def à jamais. du mës a def trois cent mille voyage par mois. kan moo nekk ci gannaaw projet boobu. par jour kan moo nekk ci gannaaw projet bi mais tey jii boo seetloo contrat bi kañ la ñu jox ab tubaab li gën a nekkati lu gën a garaaw ñu sénégalais yi bu fekkente ne exploité wala gere ab ab ab ab réseau mënuñu ko ak li Sénégal li fi nekk ci ay cadre Sénégal li fi nekk ci ay ay ay borom xam-xam kon ñun bay boo ñu dem tëddi naraw ñu leb suñu xaalis état du Sénégal leb ko defar ko ci suñu suuf jël ay responsabilité jël ay crédit jël ko jox ko tubaab bu ko loolu laa njëkk a bañ loolu laa njëkk a dénoncé à l'époque donc la balle est dans le camp de l'État BRT mën def fexe fexe fexe ba respecté li ñuy wax ne 300000 voyageurs dina ko def par jour mënu te du ko am te du ko am à jamais te loolu ñuy wax ne dañuy jël suñu déplacé suñu ligne jël leen foofu ñun loolu duñ ko nangu tey sur 6 kilomètres duñ ko nangu ëllëg te loolu suñu kanam la nekk. voilà donc Djibi Ndiaye ñu sant ba amoon nañu ci waxtaan bi. Euh, daa maa ngi leen di sant di gërëm di sant le groupe des médias di sant yéen ñëpp équipe bi nga xam ne ñoo fi ñëwoon tey pour jël euh, interview bi nga xam ne lu ñu tenir à cœur la parce que dañoo bëgg état bi gimmi ay bëtam ba Sénégal jëm ci kanam parce que ñun ay sénégalais lañ ay patriotes lañ ñoo état bi ñoo far ñoo bokk lu ñu bëgg maanaam Sénégal jëm ci kanam liggéey bi dox sénégalais gis seen bopp mais lii ñu def bu ñu ci continuer incha allah chômage dina yokk ci réew mi. voilà jërëjëf euh, Djibi Ndiaye ñu ngi koy gërëm di ko sant transporteur la nekk tamit président bu fédération nationale des euh, transporteurs euh, du Sénégal pour le changement gërëm nañu ko baax ci waxtaan bi gërëm leen yéen tam yéen ñi nga xam ne yéen ngi doon seetaan Germaine Mohamed jaw Lay Sow la ñu àndoon nag gërëm également sëñ fàllu ci wàllu montage bi mbokk yi jàmm ak